cant ak ngërëm ñeel na leen ñu ngi leen di ziar di ama ci mbégte actualité dikkaat ak yéen chaque jour nuñ koy defee li gën a fës ci mim réew actualité people politique fait divers lépp loo xamante ne rek ñeel na askan wi dañ ciy sawar lool daal di leen koy baaxee fi nga xamante ni moo di Dakar instant comme nuñ koy waxee saa suñu rek Dakar instant lépp loo xamante ne rek mi ngi ciy xuus lépp loo xamante ne rek ñi ngi koy def askan wee tax tey nag suñu actualité dañ koy doo rek a people buzz doon koo xam ne Sénégal heure bu waxee ñëpp koy bàyyi xel moom Ndella dafa génnaat ñëwaat tey ci beneen facette donc ñëw ci li nga xamante ne naam mooy sujet tabou yi moom da ci waxtaan lu baree bari donc ay kàddoom nag lenn la nee na góor góor yu mënul dara rek laay déranger. nañu dem faju ji nee na pour moom góor goo xamante ne pare nga góor goo xamante ne yëg nga sa bopp moom doo ko dérange ay kàddu Ndella Madior Diouf la alors ki ngeen di gis nag nii ci image bi moom moo nekkoon rescapé bi nga xamante ni moom la ay mbokkam doon dëjal ca dëj ba mu daal di agsi moom nag jot naa dem ba as ah, jot naa dem ba Espagne waaye dañ kaa indiwaat mu jaar fu mettee métti nag mu koy expliquer ne ndax ndox mi métti woon na lool waaye féey na ba toll ci ah, deux heures donc bi mu féeyee nag après ci la ñu gis loo xamante ne kenn xamul batalo wala dara ba mu agsee ñu dimbali leen bañ leen dimbalee ñu yóbbu leen di Nouadhibou bañ leen fa yóbbee nag ku yorul sa pièce duñ la bàyyi waaye moom bañ ko bàyyee fële ca Nouadhibou nee na yemu ca dafa ak xaalis gi nga xamante ne yoroon na ko mu delluwaat jëlaat beneen gaal pour dem Espagne nee ba mu demee ba foofu ca Espagne ci mer Rouge bi ci la gisee ñi nga xamante ni mooy euh, homme de tenue yi nga xam ne ñoo fa nekk ak sécurité bu am solo boobee nga xamante ne ñoom ñoo fay nekk nee na fa lañ ko jàppee nag bañ ko jàppee ñu jox ko mu lekk jox ko mu naan solal ko ay yére xamal ko ne da ngay dellu si Sénégal te nee na moom ab commerçant la woon ab euh, marchand ambulant la woon autant muy jaay ay tutu dëkk yi mu daj lu méttee métti métti nag bu ngeen dégloo li nga xamante ne wax na ko ngeen xam ne euh, jaar na fu méttee métti waaye nee na li mu gis ci géej bi euh, tukki euh, jaru ko benn yoon. Diaw Ketchup nag naka ni Pape euh, naka ni nag jamono gi mooy def buzz sur la toile ah, moom moo jee génn li nga xamante ne mooy Alala Kousargan waaye Diaw Ketchup nag dafa ñëw daal di koy teg ci ki nga xamante ne mooy ndoddu njiitum réew mi ak ki nga xamante ne mooy Idrissa Seck donc nee na président bu Sargan génn pale lay mujjee donc dafa ko replay morceau bi Diaw Ketchup jamono gi nag mooy def buzz di wax ak ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi. Euh, Ndeye et Ndeye Marie ñu doon ay jumelles yoo xamante ne àdduna wërngal képp ñëpp leen xam ñu doon ay jumelles yoo xamante ne siamoise lañ waaye aussi Sénégal ñëpp bëgg leen donc mënuñoo tàkkalikoo mu doon loo xamante ne c'est inexplicable ñu ngi gis itam seeni jur bu góor saa su ne ni muy sondee si ñoom ak ah, boo leen xoolee depuis seen juddu ba tey ñi ngi màgg macha allah ba tax na rek Sénégal ñëppay ànd ak seen jur bu góor di mëne combat bi di leen ñaanal bu baax a baax ki nga xamante ne rek mooy Idi daal dinay wut ci li nga xamante ni euh, mooy euh, officiel daal dinay ut ci li nga xamante ni euh, mooy ci bopp gi waaye yemu ca ba tey daal dinay jël ay fonction yu amaamam solo jëmale ko ci li nga xamante ni moom mooy place boobee nga xam ni son excellence euh, jox na ko mu mel ni nag Idi jamono gi nag dafa jël li nga xamante ne mooy mbir mi daal di koy téye ci loxoom baaba kër ngoom daal dinay nekk nag jamono gi ci ay tolof tolof yu méttee métti ñoom ak ñi nga xamante ni ñooy mag yooyee di yeewoo fële ca Ndingaleer ndaxte coowam suuf gi boobee ba tey mi ngi andi coow ni ma leen ko waxee woon léegi ndaxte li nga xamante ni nag moo jëm ci coowam googu nag ndax li nga xam ne ñoom ñu ngi koy waxtaanee seen biir Babacar Ngom nanguwu ko waaye kilifa yi nekk ndingaleer tamit ñoom itam duñ ci delloo ginnaaw benn yoon solution bi nag mooy ñu jéem a waxtaan trouver terrain d'entente ba ku ci nekk xool li nga xam ne euh, mun nañ ko def ci coow du am waaye coowal suuf si jamono gii nag commencé naa am ampleur ci li nga xamante ne mooy Sénégal bañ na ko ba nitu Thiès lañ leen di dippee nitu Thiès piscine party moo amoon fa li nga xamante ne mooy ca Thiès ab yendu weekend bi ñu génnee ab ndaw nag daal di fay ñàkk bakkanam ndax li nga xamante ne mooy maître nageur yi weekend boobu ñëwuñu mu doon loo xamante ne jamono gii nag ñu ngi gis ne jeunesse ñu ngi ah, xale yi ñu ngi loru bu baax a baax a baax ci li nga xamante ne mooy piscine yi ndax nemmeeku woon nañ ko fële ca Lac Rose ak feneen ak feneen tey jii fële nga xamante ne ca Thiès ñu nemmeeku fawaat ko ñuy wax rek xale yi nañu soit prudent waaye aussi ñi nga xamante ne ñoo jiite piscine yi ak li ne mel tamit nañu gën a fagaru ki nga xamante ni nag mooy euh, Emmanuel Macron depuis ci caricature boobee nga xamante ne defoon na ko mën nañ jàpp ne booy ba tey ci ay tolof tolof la nekk ndax gis nañ naka ni démb ci mars 17 op 17 novembre bi fële nga xamante ni mooy ca France li nga xamante ni mooy coronavirus bi mën nañ jàpp ni day gën a am doole di wéy ndaxte boo xoolee daa euh, yegg na ci li nga xamante ni moo jëm ci ñaari million ci euh, ay doomi aadama depuis bi mu tàmbalee ba tey wala sax mu ëpp ko ndax gis nañ li nga xamante ni euh, moo di euh, coronavirus bi am na fa doole am bu jéggi dayoo ba ñu waxoon ne sax dañ leen daal di mujjee delloowaat ci li nga xamante ne mooy confinement bi jamono gii nag Emmanuel Macron jommi na waaye ki nga xamante ne mooy Guy Marius nee na rus naa wax ki nga xamante ne wala itam xamul sax naka lay waxee ki nga xamante ne mooy le porte-parole des Mourides Serigne Bass Abdou Khadre ni dangaa juum ndax sëñ Bass Abdou Khadre dafa génn ci week-end bi fële ci këram def ab déclaration bu am solo pour xale yi nga xamante ne ñooy dem ci géej gi mu ne leen dee ci géej xarula waaye Guy Marius Sagna nee na moom xamul lu muy def ba wax ko ne kilifa gi dangaa juum mu doon ay kàddu yoo xamante ne am na solo lool. waaye ba tey rek gannaaw ba marché ocas lakkee waaye itam ñu gis fi ay immeuble yu baree bare yu ci yàq ak koppar gu bari ju jog a dem fële nga xamante ne itam mooy marché bu Mbàkke itam daal di nay jël ab lakk lakk yi nag jamono gi kenn xamul lu koy waral waaye bu ñu xoolee buñ ko xaymaa ci gàttal lakk gi li muy def ci yàqu-yàqu bari na lool ba jéggi dayoo Job Isaac nag daal di nay ñëw ci coowalam moom ak ñaaralam boobu di Aïssatou Seydi nee ki nga xamante ni mooy di jabaram boobu di Aïssatou Seydi xalaatul woon ni un jour viendra mu génnaat kaso moo tax mu daal di am ay complice gannaaw ba mu nekkee foofee nga xamante ne mooy ca kaso ba mu daal di notifié ay chagam lépp loo xamante ni amoon na ko Aïssatou Seydi mu gaaw profito daal di koy def ci turam looloo ko andil tey ba ay Aïssatou Seydi war a jël këram gi nga xamante ni moo nekkoon fële ca Sacré Cœur waaye lépp rek nee na nee na Aïssatou Seydi xamoon ni un jour viendra moom dina génn waaye li nga xamante ni jamono gi nag mooy ñool ci suuf ay Aïssatou Seydi dafa jël kopparu Jóob bi yëpp daal di ciy teg loxam waaye Jóob tamit mi nga xam ne du ko bàyyi benn yoon Iran Ndaw itam ba tey ak coowal ji nga xamante ni rek waxoon naa leen ko sànq comme ni ko Guy Marius Sagna waxee ki nga xamante ni moo di sëñ Bass Abdou Khadre ba tey rek Iran Ndaw itam daal di ñëw tamit nee na moom d'accordul ak sëñ bas Abdou Khadre fi muy waxee nee na ku si dee nekkul xaru ndax naam sëñ bas Abdou Khadre dafa ne ku dee ci ndox mi xaru nga ndaxte ku ci nekk ci ñoom ñëpp ñooñee di wax seen version lañ am ku ci nekk li ngay wax am nga foo ko teg waaye d'accordu ci ndax loolu du xaru xaru lam du xaru dinañ ci gëna def ay jéego dinañ ci gëna def ay jangat xol li nga xamanteni mo gëna fess ci bobé nga xamanteni moy émigré clandestine bi té jamono gi ñi ngi wax wax ji bari na lool waaye teewul batay tey yaangi profito ndax té bo xolé xoolee rescapé bi nga xamanteni mo bayé ko fele ci Thiès ci Tasset ñu dem ba Nouadhibou way mu wat fele nga xamanteni modi ci Espagne nga xamanteni ñi seen lenn lañuy gis moy dem Espagne dem Espagne nag baax na lool waaye aussi ak anam ga ñuy demee Espagne dem Espagne baax na lool waaye aussi nga xool itam comportement bi nga xamante ne war nga ko fa mën a demee ndaxte yaakaar naa dem ba Espagne yoroo ay papier dem ba Espagne jaar ci géej gi dem ba Espagne ñu lay buntu xatal di la toroxaat pour delloo si waat la yaakaar naa nga toogoon sa réew saxoo ko gën waaye ba tey rek Ndella Madior Diouf daal dinay dikkaat defati buzz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 Dakar instant je vais suivre si page page YouTube dal. Wa Dakar instant mon une xolé sen rek day lool chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire lo wax ci Dakar instant. Wow, c'est une première mais ni gissé dit Dakar instant il prouver ne Dakar instant ci kanam la jëm inshallah allah. ñu koy suivre Dakar instant. lan leen laay wax na gars dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen si dakaar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. waaw dakaar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu ma xee bu ma yeewoo information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant.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

Adresse email gmail.com L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant.